du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وكي maa ngi teg sama bopp ragal yàlla leen ko dégg suñ borom tabaaraka wa day wax ci téeréem mu tedd bii di alquran nee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mi ngi jàmbat boroomam nit ñi nga xam ne dañoo wan gannaaw alquran dañoo dagg seen digganteeg alquran yonent bi sallallahu alayhi wa wax na boroomam di ko jàmbat dëdd goo xam ne lu bari ci nit ñi dëdd nañ ko alquran ji nga xam ne moom la indi muy amu métit ci loolu di wax ne yow sama borom nit ñi nga xam ne ñoom nga ma yónni ci ñoom ngir ma gindi leen ngir ma jottali leen sa téere bi ñoom day ñu bari ci ñoom dañoo wan gannaaw alquran dañ koo dëgg dañ koo dagg dañ koo bàyyi te li waroon seen ak alquran mooy ñu wommatu topp ay atteem jublu ci ay njàngaleem di dox ci gannaaw alquran alquran nekk lumière bi nga xam ne mooy jiitu ñu topp ci wattabau nuur allazi unzila ma borom ni nit ñi doon lañ wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko yow day dañ laa waroon a wàcceel ay kéemtaan ni ko yonente yi doon amee lu melni musa alayhi salam yat wañ ko joxon lu melni ne gele mom ga lu melni Isa alayhi salam nam doon wérale ñafa ñet wop ak di dekkal sax jafat waye lepp nak ci digal suñu borom tabaraka taala ñu ne yonente bi yow itam da nga waron am lu mel non suñu borom nako ko nee innamal ayatu indallah kéemtaan yoyu suñu borom tabaraka taala moko yor fa mom la nek nekul fi man ñooñee ko doon def itam du ñoo ko defal seen bopp wa innama ana naziru mubin man daal li ma indi du wane ay kéemtaan waaye mooy xupp leen ragal loo leen mbugal ba ngeen mën koo moytu waaye xemmem loo leen aljana ba ngeen mën a jëf lu leen fa yóbbu yéen yi laaj ay kéemtaan xanaa daf leen a doyut alquran ji suñ borom ne xanaa alquran da leen a doyut kéemtaan awalam yakfihim anna ansalna alayka alkitaba yutla alayhim alxuraan jii ñuy jàng te kenn mënta andi lu ni mel loolu comme doyul kéemtaan mënatoo am geneen kéemtaan te alxuraan jii day yërmandee ngi ci waaye ak fàttalee ngi ci ci nit ñoo xam ne gëm nañ yàlla alxuraan li ci nekk ci ay firnde ak i tegtal yu leer doy na sëkk ci xam dëggug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne kii ab yonent la yàlla moo ko yónni yow mbokkum jullit ñi ngir nga baña bok ci ñooñu nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wan gannaaw alquran te loolu bari na lool leg deug la kamil yi bari na kër ko dem ko fa fek wala fek fa sax lu bari ñu koy tek ci armoire yi di ko tek ci auto yi di ko tek fu nek way tax alquran loolu ko taxatu legel ni sax ñu dajalo di ko jàng waaye ndax lool rek moko taxatu alquran ngir ñu mëna xamne bokku ñu ci ñi dag dañuy xam ni du séq ak moom ndax koo xamul loo séq ak moom doo xam ba xam dagg nga ko wala jàpp nga ko ndax mën nga koo jàppee noo xam ne loole boolewu leen am na fukki mbir yoo xam ne moo nu boole ak alxuraan ku ca bàyyi benn rek am na foo dagg alxuraan ku bàyyi lépp nag dagg nga alxuraan lépp ba ca jiitu mooy ñu gëm ne alxuraan jii wax yàlla du waxi nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min ko wàcce ci moom moo ko njëkk a gëm amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbi waaye wal muminuun ak ñi gëm yàlla ñëpp itam gëm nañ ne alxuraan jii waxi suñu borom la tabaraka wa taala ku ci am dara looy sikki sàkk rek jàpp ne waxi yonent bi la jàpp ne waxi nit la loola kon yow bu boobaa foofu nga njëkk a daggee alxuraanul karim ndax bu boobaa da koy jéem a dendale ak say xalaat wala ngay jéem a am loo ca diigat gannaaw bu ko gëmee itam nag ñaarel ba liñu ñu booleeg alquran mooy ñu di ko jàng alquran dañ koy jàng jëmmi jàng gi rek ak jaamu yàlla la suñu borom tabaraka taala mi ngi wax yonente bi salaa sallam ne ko utlu utlu lolu ndigal la jàngal ma uhiya ilayka min alkitab li ñu la wax yu ci alquran wa aqimis salat te ngay taxawal bind kon di ko jàng baax na lool waaye rawatina nag di ko jàng ci biirub julli nag borom bi dal wax ne inna allasina yatluna kitab ñi nga xam ne dañuy jàng téereb yàlla bi di taxawal julli di joxe ci li waleen war sëggal ci lu nëbb ak ci lu feeñ ñooñu day ñi ngi commerce commerce boo xam ne du lamb ndax yàlla man yàlla maa koy jënd ci njëg bu mat sëkk ba noppi dolli leen ci sama mbaax ak sama xiwa ñetteel ba gannaaw jàng ma nag di ko jéem a mokkal boo mënta mokkal lépp itam loo ca mën a mokkal nga di ko mokkal te mokkal gi bañ koo wutal foo koy yemale bañ koo bàyyi ba ba nga fiy jóge bu ci xeeb dara bul ne man noppi naa ci alxuraan déedéet bu fekkee mokkale goo lépp bis bu set jéem cee am dara loo dolli ko ni ngay kër këree di wut am amu àdduna noon nga war a sonne ci lu ko raw di wut alxuraan di ko dolli ko jamono bu nekk loo ca am nga fexe mu bañ la rëcc ndax kat suñ borom nee ne ci dënn yi laa koy def bal huwa ayatun bayyinaat في صدور الذين اوتوا العلم آية يلام نان لا واي مانكاي داف تي دن نيغا خامني نارنا لينا جو خام خام ولا صاح جوخ لين لين خام خام ньо ньо خامني القران ميغي سي دن ني غور غورلو با ديك كو ديكو جافي ньо ньо ньоي سانج بي ديفي ньо ньо ني تي اوب خيل ньо ньо ني تي گنا مات ньо ньо ييغا خامني اولاي لين تي كينين كوم دون ku leen mën a weddi juuyoog ñoom loola du leen wàññi dara loola ka ko def ci moom rek lay dellu si waat kon gannaaw gëm gi ak jàng gi ak mokkal gi ñeenteel ba nag mooy di ko ci keneen ku koy jàng alquran loo ko mokkal ak loo man mën jang jàng bu ñu ko dee jàng ci sa kanam na nga déglu suñu borom mu ne wa isa quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun suñ dee jàng alxuraan nga di ko dégg na nga ko déglu te na nga ne cell bàyyi lépp loo doon def ci ay wax ak yeneen yëngu yoo doon yëngu ngir ñu yërëm leen ndigal loolu ndigal la suñu boroom digal ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg ñuy jàng alxuraan rek moo tax itam nag alxuraan fu ñu koy tege war nañoo bàyyi xel ci ne ñii pare nañ pour déglu ko waaye niñ koy def di ko animé ab xew-xew am ñu teg alxuraan nit ñi di waxtaan loolu kenn waru ko def bu fekkee nit ñi dañuy waxtaan dañoo am ay yitte dañuy jàmmante dañuy nuyoo foofu kenn waru faa teg bàndu alquran muy jàng ndax alquran fu ñu ko tegee rek kenn waratu la wax wa isaa quri alquran fastamiu lahu quri al lañ wax waxuñu sax de ko bu ko nit jàngee waaye même ab bànd sax bu koy jàng jàng ñi ngi jàng alquran rek fastamiu la bu ñu ko dégluwul kon defatuñu ndigalu yàlla te bu ñu ko deful kat day mel ne kon yërmande jooju dutuñu ko yeyoo diggante déglu ko nag muy alistima wal insaan ak cellantu cellantu gi mooy nit ki bàyyi waxtaan wi mu doon waxtaan bàyyi lépp loo xam ne doon na ko soxlaal ba du mën a déglu alxuraan ndax déglu ak dégg bokkut dégg moom bu ñu tegee alxuraan ci sawet faw yaa ngi koy dégg gannaaw taxoo da nga ko dégg waaye nag ndax yaa ngi koy déglu yaa ngi koy déglu nag mooy nga bàyyi mbooleem loon doon def nga teg di ko déglu déglu gi kon mooy nga joxe sa nopp teewal sab xol di setantal li muy wax su fekkee xam nga ci dara nga ciy bàyyi xel ñaar yooyu ku ko takkoo su déggee ñuy jàng alquran mu déglu ko ci noppam waaye teewal ab xolam di ko dana am yiwu bare bare bare bare te itam dana jële xam-xam bu bari te itam ngëm yàllaam day gën di yees day gën di sax borom nee wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana neena buñu leen jàngalee alquran ngeen dégg loolee day yokku seen gëm yàlla te day gën am lu ko leer ci diineem moo suñu borom tabaraka wa taala teg amuk yërmande ci ñaar yooyu muy déglu ak cellantu ci alquranul karim da nga ci dégg ne kon ku ñuy jàng alquran fi moom te dégluwu ko wut kooku day xañ nañ ko yiwu bu bare bare xañ na boppam itam yërmande suñu borom tabaraka wa taala juróomeel ba ci li ñu seq alquran gannaaw bu ñu ko gëmee di ko jàng di ko mokkal wala di ca mokkal lañu man bu ñu ko dee jàng ñu di ko déglu waaye nag ñu di ko settantal settantal nag kenn mënu koo def lu moy ne da ngaa dégg alquran ji li muy wax moo tax suñu borom tabaraka wa taala bi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da leen di jàngal alquran daf caa teg wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma da leen di xamal téere bii li muy wax leen koy firil leeralal leen su ko defee nga di ko mën a settantal settantal mooy nga di ko andi ci réalité bi ngay dund jàpp ne aaya yii di wax yow mii lay wax kitaabun ansalnaahu ilayka mubaarakun léppam barkel la lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayatihi wa li yatazakkaru ulul albaab ngeen ñu settantal ay aayaam xalaat ci budé lu muy digle ñu xol ba xam noongi ci mbéet buñ ca nekk du jëm ca nekk budé lu muy taré la ñu xol ba xam bàyyi nañ ko mbéet suñ ko bàyyiwul ñu jëm ko bàyyi kon nit ñi dañuy sétantal alquran di génne xam-xam ya ca nekk di sétantal ay mbotam ak secret ak hikamam ci sétantal googu ci la ñuy jote barke bi nekk ci biir alquran karim suñ borom nee mo tax afala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha nit ñi nii ñu mel ndax dañoo sëttantalul alquran wala boog ndax seen xol yi moo tëj koo gis nekkul ci njub rek ñaar yooyu moo ko dal ñu ma koy faral di misaale guddi kër goo romb mu lëndëm benn ñaara am ñoom dañoo jotu la xëcc courant wala dañ ko xëcc ba noppi ñu ko pele ki ñu xëccul courant mooy ki jàngul alquran da koo jàngul moom xëccul ci courant wu alquran bi ولا قتي لكو جانغنا القران واي دا فا ديف لوتاخ يالا كوبي خولم يالا داي كوبي ختم الله على قلوبهم يالا داي كاستا خولي تا خول بي سوكو خاسي كوبي تيري دوت مانا جافي دار رك القران نيغا خامي ني ني ويري قران كولين يورال فايو لين دو نيو دي ويكي ساي بير ولا ني ديبرانسي ساي اباري كونتور مالا نيو ري كوبي دار دوت دوخ سونو بروم تام خول با رك لاي كوبي تانك بي دوت دوخ لو ديبوك القران làmmiñ bi duutu ko wax bët bi duutu ko xool loxo bi duutu ko laal kenn duutu ci defati lu dëppoog alquran moo tax borom mi ne am ala qulubin aqfaaluha mu ndax xol yi dañ ko kànnaar juróom-benneel bi ci yi nga xam ne moom la ñu seq ak alquran itam nag mooy bu ñu demee ba di ko settantal ba xam li alquran wax ba noppi fam joxeñ nag ñu jaar fa ittibaauhu wa hasa kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu digal la de fattabi'uhu top len ko wattaqu la'allakum turhamun top len fi len alquran jëmlu ca la muy digle ak la muy tere na ngeen teg seen diine jëpp bànqaas ya ak ya ko ci alquran ndax kat sabab bi gën a mag ci luy maye yermane suñu borom tabaraka taala moy top alquran ci wax ak ci borom bi nee na ittabiu ma unsila ilaykum min rabbikum topp leen lii ñu leen wax wàcceel mu bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala bu leen topp leneen wala tattabiu min dunihi awliya bu leen déglu xalaati keneen wala théorie yi keneen di andi yu wuteeg alquran juróom-ñaareel ba nag mooy gindiku ci alquran alquran day gindee day wanew yoon inna haasa alquran yahdi yahdi lillati hi aqwam day orienté di wax jaaral fii mbir mu mën a doon rek la ci gën a jub loola la la ca alquran bi joxe wa yubassiru almuminina allasina yaamaluuna alsalihat anna lahum ajran kabira suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci teddaayu alquran ak màggaayam ne day gindi ku ko topp ca la gën a jub ci mbir mu mën a doon la gën a jub mooy la gën a maanu mooy la gën a kawe ci pas-pas yi ak jëf yi ak jikko yi bépp melokaan bu ñuy tagg rek la ca gën a kawe moom la la alquran bi wax kon ku gindiku ci li alxuraan di woote kooka day bokk ci ñi gën a mat ci nit ñi ñi gën a jub ci nit ñi ñi gën a gindiku ci mboolem seeni mbir moo tax jinne yi ñoom ba ñu déggee alxuraan bi di ko jàng wa israfna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alxuraan jinne yi ñoom ba ñu ko déggee xaalu ansitu dañu wax seen mbokki jinne ne la déglu leen falammaa qudiya wallaw ilaa qawmihim munzirin ba njàng ma jeexee ñu daal di dellu ci seen mbokki jinne bañ demee nag ñu daal di wax ak seen mbokki jinne di leen yaa xaw ma naa inna sami'na kitaaban unzila min baadi Muusa musaddiqan lima bayna yadayhi ñun de tey dégg nañ téere boo xam ne ñu ko wàcce ci gannaaw Muusa waaye mboolem lu nekkoon ca la Muusa doon jàngale téere bi weddiwu ca dara dafa dëggal lépp téere bi nag yahdi ilal xaq alquran jooj ñu dégg ñu koy jàng day day wane yoonu dëgg wa ila tariqin mustaqim te day wane itam yoon wu jub borom bi dal ko wax ne waxal nit ñi ne leen uuxiya ilayya annahu stamaa nafarun min al jinni wax wi nañ ma ne am na mbooloom jinne mu ma doon déglu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëgul woon ne jinne yaa ngi koy moo ne ko jinne yaa lay déglu bi ko dégloo lu ñu wax inna sami'na qur'anan ajaban nun day dégg nañ alquran bi yéene alquran jooju lu muy def ñu ne yahdi ila rusd day wane ak ba ngeen ko déggee nu ngeen def ñu ne fa naa bi gis nga dañ koo gëm wala nusirka bi rab rabbina ahadan ahadan te duñ bokkaale yàlla ak dara nekk kon alquran ngir nga jariñu ci da nga koy gëm ngëm ko ànd ak tawxid buñ gëmoon yàlla ba noppi bokkaale ak yàlla itam duñ jariñu ci alquran gis nga kon jinne yi ñoom nga xam ne moom dañ cee bokk si rek waaye alquran ji ci nit ñi lañ ko wàcc qul yaa ayyuhan naas waaye jinne yi nag dañ leen cee boole kiñ ci boole nag mu dem ba ëppale la ci yow mi nga xam ne yaa ko tax a jóg loola kon boobu ak càggante la te jinne yi dégg nañu alxuraan di ko taxa a jóg ñoom nee nañ yahdi ila rusd fee ñu ne yahdi ila alxaq lu leen ca war ñu ne fa amanna bihi gëm nañ ko bu ngeen ko gëmee nag ñu ne walam nushrika bi rabbina ahada juróom-ñetteel ba ci li ñu seq alxuraan mooy nag di ci woote nit ñi ku leen di woo alxuraan ngay jël di ci woote mooy wootewukaay bi du ay xalaat du ay téwal kitaabun ansalnaahu ilayk lu tax li tuxrija naas min azulumaati ila nuur alquran ngay jël génn ci nit ñi ci ay lëndëm yóbbu leen ci ak leer gis nga lëndëm yu bari la mais leer moom genn la lëndëmuk réer andi leen ci leeru gëm yàlla lëndëmuk weddi yàlla andi leen ci leeru gëm yàlla jële leen ci lëndëmuk bokkaale andi leen ci leeru tawxiid من الظلمات الى النور باذن ربهم تا لول لب نك دون ساي خالات دي واي تي نديغالو سين بروم سا بروم كوي داف الى صراط العزيز الحميد نغا تك لين تي يون ميغا خامني موي يون يال سن بروم كوم ميغي خبار ني واتي نا تيري تي يونت بي صلى الله عليه وسلم غير نجاري نيو بيندي في رك غير ген نيت ني تي لند مي رير اك كيفر اك جيكو يو نياو اك خيتي مو يالا يوبو لين تي ليرو خام خام غم يالا اك مبولم جيكو يو رافيت motax mu wax yonente bi salaa sallam ne ko neel wa uxiya ilaya haasa alquran dañ maa wax yu alquran ji ngir lan li unzirakum bihi ngir ma waara leen ci waman balax ak képp koo xam ne alquran egsi na ci yow rek sama waare googu may waare ci alquran ci nga bokk suñ borom dellu ko wax ne fala tutiil kafirin wa jahidhum bihi na nga jihaat ak ñoom ci alquran jihaadan kabira mana seen baatil ak seen caaxaan yi ñuy samp na nga ko dajjee alquran bal naqsibu bilxaqi ala albatil فيردمقه فإذا هو ساق جروم نينتال با كي لي نيو القران موي دنجي سافرا جانغو يي نيك خل خول خول فيبر في قلوبهم مرض فيبر ملك نك با سي غنا غراو يالا ولا بوكالي يالا ولا نافق ولا ري ولا تخر ولا كينان ولا مبانيال يو اي فيبر لا يو نتي خول القران نك موكاي سافرا suñu borom ya ayuha nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur yeen nit ñi ak waare dikkal na leen bu jóge ci seen borom waye waare dong taxu ko jog waye day fak jàngoro yi nek ci xol yi te kat yowmal suñ borom neena ku fa ba la ga dug aljana dañuy xol sa xol ba ben febar nek ci yowma la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sab xol day mucc na dara ci febar nek ci kon nag liy faj feebar bi fii ci àdduna muy alquran moo taxoon waykat wa de li gën a mën a wóor am ramm mooy wa awsafu wa xayru kitaabin kitaabullahi awsaqu saafiri wa inna kitaaballahi awsaqu saafiri wa inna kitaaballahi awsaqu saafiri nee na li gën a wóor ci looy yaakaar am rammam mooy téere borom bi tabaaraka wa taala ndax moom fii la lay ràmmi ci àdduna bala ngaa dem la lay tàggaleeg lépp lu la mën a andil musiba yowmal xiyaam alxuraan soo ko toppee fii la lay tàggaleeg moom du nit ba nga dem foofa mu lay doo a defal intervention fekk àndaale ko say bakkaar ak sa suñu boroom kon xam le ne alxuraan dafay saafara jàngoro yi sëhawaat ndax jàngoro yi ñaar rek la sëhawaat ak subuhaat jàngoro yi sëhawaat muy bànneex yi nga xam ne mooy tee topp dëgg ak jàngoro yi lënt lënt yi nga xam ne mooy tee am xam-xam bu leer li ne ci alxuraan ci ay waare ak di la xemmem loo Agdila ak di ragal lo mbugalam ak li ci ne ci alquran ci ay tekk ak ay dik yoy ku koy jang wala nga diko deglu day tax nga xemem la nek fa yalla ci ay xewal waye day tax nga ragal la nek fa mom ci mbugal su ko defee kon da nga mujj dem ba ngërëmul suñu borom tabaraka taala mom ngay jiital ci sa bëgg bëgg bakkat lepp luy gëreem lo yalla mo lay gënal lo xamne sa bakkan lay gëreem lo وربنا بنا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قصارا دفنا في القرآن لو خمنا سافر لي سافر جانغورو خل واي يرمد لتي يغم يال واي كو يال مو بودي جانغ القرآن دوكو دولي لوماي بيرت دا داف كاي غنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بو الله جا لوي القرآن لوكو تاخا جوم للذين آمنوا هدى وشفاء moom day ci ñi gëm yàlla ak njub la saafara fukkeel bi nag ci yi nga xam ne moom lañ war a joteeg alquran alquran dem ba di jeexital ci sunu xol fu ñu ko déggee sunu xol tiit sunu xol yëg ko alam yaani lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq suñu borom ne man ndox jotul nag ci ñi gëm yàlla ñu dem ba suñu déggatee turu yàlla dégg alquran seen xol yi tiit walay lay xam ne su doon tiital xol yi kon nit ñi duñ ko teg ci ay xew-xew ba noppi toog di waxtaan am ndaje am ñu teg alxuraan ba noppi toog di waxtaan li muy tekki mooy kon tiituñu mais am na xibaar boo xam ne buñ leen ko jotali woon rek wax leen musiba mu rëy muy bëgg a xew kenn tuuti waxtaan ñëppay tiit ñëppay bàyyi wax ci te alxuraan de pourtant li muy wax loolu moo gën a raglu moo gën a jar a tiit leneen lu mu mën doon borom bi ne bu leen mel ne ñi leen fi jiitu woon téere bi yàgg ci ñoom ñu yàgg koo miin fi mu ne am na ñoo xam ne saar yi ñu mokkal muy saari yu gàtt yi boo ko da jàng sax duñu la dégg ah saar yooyu yàgg naa koo dégg fa taala alayhimul amadu fa xasat xulubuhum seen xol mujj wow wa kasirun minhum fasiqun kon jot na ñuy ragal suñu borom tabaraka wa taala xol yi di tiit di bàyyi xel suñu borom ak di bàyyi xel alquranul karim di wammatu di topp ay ndigalam di wattandiku ay tereem loolu jot na ci jullit mi fu ñuy jànge alxuraan day mel na alerte wër tayam ak yeneen wax ju ñuy dégg wër su ñuy wax ba dégg kàddu alxuraan ñëpp war na tekk jàpp ne lu bees am na lii bokkul ak wax yi ñu daan dégg ak wala suñu waxi bopp kenn waru koo booleeg di waxtaanati suñu demee ba bëgg waxtaan nag kon nañu ko arrêté ba bañ koy mën a dégluwaat ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu def alquranul karim muy lii naatal suñuy xol di ko dundal muy leeral suñuy muy liy dindi suñuy njàqare di dindi suñuy jaaxle di dindi suñuy tiis wa huwa arhamu rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain